maanaam zone euh, militaire numéro 3 ba ci sax kii di maire bu euh, Kaolack di Serigne Mboup ñoom ñëpp daal nañuy teewee li nga xam ni rek mooy euh, bés boobu la ñuy màggal fête bu indépendance bu Kaolack daa ngeen teew lu jàngat bi ci yële xibaar buñ ca noppee daañ dem ba Koutal séeréer bi nga xam ni askan ba maire ba futt la ñu def ndax seen maire ba jàpp seen suuf sa di ko caxat caxatee lu ko neex a def ca lu ko neex a dindi ma tax rek ñu daal di wàcc ci mbedd yi daa ngeen teewlu jàngat bi ak Cheikh Tidiane Dansokho ci yële xibaar ñaareelu xaaju xibaar yi ñetti ponk lay doon xibaar biti réew la ñu koy dooree toftal ci xibaar yi tàggat yaram li ëpp yëglekaay yi xëy tey moo koy buural mbokk yi ponk yaa ko bu ngeen taaxee loo ñu faram fàcce jaajëfal leen ci ànd beeg teelu bi beneen yoon di leen ziar waaye itam janook ay daka ci xarale gi ñu leen ko junjee ci bopp xibaar yi la ñu koy daal di doore juróom-benneelu fukkeel ak ñaaru anniversaire li nga xam ne rek mooy fête bu indépendance euh, ci ma Sénégal waaye itam Kaolack desu ci ginnaaw ndax zone militaire numéro 3 ñoom itam ndaat nañuy màggal bi la bis ci teewaayu ki nga xam ne rek mooy gouverneur a Badara Mbengue mu ñëw rek bokk ci prise boobu waaye tamit li nga xam ne rek mooy défilé civil bi ak paramilitaire ndaat nañu koy ma amal ci boobule eh, bés di ña rafetlu li nga xam ni rek moom la eh, ñii di armée bi eh, def rawatina ci xeexub mbasub coronavirus Alioune Bataxa Mengaay kàddoom ñu teewlu ko. tey jii xol yi sedd nañu ndaxte fête bu mel nii fête indépendance. di fàttaliku suñu réew bi moomee boppam ak léegi muy juróom-benn fukki at ak ñaar lu am solo la mais nag ren xam ngeen ne yi nga xam ne mooy président de la chef suprême des armées moo ko bëggee nii parce que xam ngeen ne ñaari at ñetti at yëpp euh, Sénégal à l'instar de tous les autres pays du monde mbas mi daf ñu sonal donc nu ñu ko gën a wàññee rek mooy gën yàlla def na nag heureusement mbas maa ngi wàññi bu baax a baax a baax te fête indépendance bu am dafa am thème bu nga xam ne nii moom la président de la république di décider ne nañ ko nañ ko célébrer pour fàttaliku nit ñi thème mu ren bi nag mooy force défense et sécurité et résilience nationale maanaam ni nga xam ne nii moom la takk dere muy armée gendarmerie sapeur pompier police douane eaux et forêts et cetera ni nga xam ne noonu la ñuy àndee ak réew mi foo mënta dem ci réew mi bu xew xew amee muy jàmm wala safaan boo gëstu da nga leen gis remarqué nañ ko ñaari at yëpp couvre fa bi état d'urgence guddi ak bëccëg du ñu nelaw boobu civil di nelaw ñoom ñu ngi surveiller pour que bu kenn xët état d'urgence bu kenn xët couvre-feu mais loolu ci gën tuuti gis nañ leen chaque fois bu lakk amee wala ndox mu bëri am inondation am da ñu leen gis ñu jiitu bu leneen amee da nga leen gis ñu jiitu wax dëgg yàlla loolu ku koy def nation bi ci occasion yi mel nii war na la delloo njukkal ni ma ko waxee nag mooy Dieu merci suñu armee nekkuñ fële te côté bële population nekk ci beneen côté bi suñu armee suñu force défense et de sécurité en général dañoo jaxasoo ak population yi lu xew ñu ngi ci ñu ngi ci ci kanam ci gannaaw ci biir population loolu yàlla defal nañu ko ñu ci sant yàlla bu baax a baax défilé tey bii nag wax dëgg yàlla rafetlu nañu ko ni mu amee ci anam yi mu amee ak ni ñu ko organisé ba tax na maa ngi ciy gërëm bu baax di félicité bu baax di encouragé yi nga xam ne nii mooy colonel Amadou Mahtar Ndiaye di commandant zone militaire numéro trois ak mbooloom collaborateur yi mu àndal moo koy félicité di leen félicité ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen encouragé ci nii ñu ko organisé di aussi sant di gërëm wax nañ ko fi léegi sëriñ bu jàppale bi nga xam ne nii jàppale na ko joué lu maire am ci organisation matérielle di nuyu ak eux di sargal aussi maire yi fi nekk yëpp président conseil départemental notabilité coutumière ak religieuse di ñaan nag suñ borom mu may ñu weeru ko jàmm lépp luñ ko ci jàmm mu nangu loolu daal bëggoon naa ko wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp ah di wax rek déwénati keneen ku daal di rek teewee boobule bés di commandant zone militaire numéro 3 di wuyoo ci turu Amadou Makhtar Ndiaye moom itam daal nay rafetlu bu baax li nga xam ne mooy prise d'arme bi ñu amal waaye itam ci tomb bi nga xam ni rek moom la ñu tànn ci atum ren ngeen amalee ko boobule défilé militaire ak paramilitaire ñeel lii de fête indépendance bu Sénégal Amadou Makhtar Ndiaye kàddoom ñu teew ko. défilé bi euh, si place publique bi suñu population bi ñëw particulièrement ndaw yi vraiment loo xam ne ne ñun ñu koy rafet lu force défense et sécurité gis nañ ko démb bu ñuy def retraite au flambeau nu ñu xale yi toppee ci tali Kaolack yi ba ñu yeggalu gouverneur te xam naa ne moom ku xalaat 4 avril rek surtout bu ñu nekkee ndaw looy njëkk xalaat mooy retraite au flambeau donc euh, cachet populaire bu défilé bi am vraiment ñu koy rafet lu baax a baax dama ne préparé wu nañ te mënee nañ tamit ñoo xam ne dañu ànd pour même objectif ànd doogoo nag dafa am solo pour ñun parce que ànd doogoo mooy tax ñun lépp loo xam ne ne safaan la ci dëkk ñu mën koo xeex parce que liggéey bi du liggéeyu armée rek liggéeyu gendarmerie la liggéeyu police la liggéeyu euh, sapeur pompier la liggéeyu eaux et forêt la liggéeyu service d'hygiène la liggéeyu administration des douanes léegi liggéeyu administration pénitentiaire donc euh, défilé bi tamit day wane ne ñun ci force défense sécurité yi ànd nañu pour xeex lépp loo xam ne day indi safaan thème bi nag loolu la mooy forces armées et résilience nationale mooy wane ne ñun force de sécurité ak lu ñu am suñu moyens yi suñu matuwaay yi lépp la ñu mën a def pour xeex lépp loo xam ne lu mën na indi yàqute wala jafe-jafe ci ci réew mais nag du yem rek si ñun pour mu mën a nekk il faut que ñu lëkkaloo population moo tax ñu ngi rafet population la yi participer démb de fête au ñëw fii aussi tamit teew ci défilé moom sëriñ boobu di maire bu Kaolack waaye tamit ki nga xam ni mooy président conseil départemental bu Kaolack di Youssouf Ahmed Bengelloune ñëw itam daal ñuy teew ci la nga xam ni rek mooy màggal lii di bésub indépendance bu Sénégal waaye tam fii ci Kaolack seen i kàddu ñu teewlu ko. di yëkkati samay nuyoo ak ay félicitations di ko jox colonel Ndiaye. mu transmettre ko service de sécurité bi yëpp di wax rek ne dafa am ñett yoo xam ne ni ñeent yoo xam ne nii moo nekk ci militaire yi looloo tax ñu leen def benn bi mooy bëgg liggéey benn bi mooy seen jom benn bi mooy seen woyof benn bi mooy seen courage mooy foo xam ne nii fu ñu bëgg a dem ak seen yar loolu moom yaakaar naa ku jaar ci militaire te yaakaar naa ñun ñu jaar ci daara tamit ñeent yooyu lañ ñu boole kon looloo tax défilé bi jox na ma xalaat ne danañ waxtaan ak ñoom xool nan lañ man a fexe ba nga xam ne nii loolu danañ ko mën a wàccee ci école yi ci xale yi ci ñëpp ndax ñëpp xam nañ ne Sénégal service militaire obligatoire waaye mooy moo man manqué ba loolu mënta am waaye quand même nit ki war naa mën a def léegi service militaire am wala formation militaire am dans son esprit pour am yeneen valeur te xale yi seen bi lépp dañ koy jaarale seen ci ñu ngi ci portable yi ñu ngi ci leneen je pense que dugal ci ñoom leneen comme ni américain bi mel comme ni chinois bi mel comme pays yi nga xam ni ñoo taxaw tey comme israélien yi niñ mel je pense que loolu waxtaan naa ci ak colonel bi et je pense que incha allah dara la loo xam danañ ko dérouler yaakaar naa danañ ci am adhésion population bi ak adhésion euh, kii waa Kaolack yi ndax suñ ci paree ñu am wala ci à l'avenir commencé former jeunes sénégalais yoo xam ne nii bien que ñoom ñëpp bëgg nañ seen réew mais danañ am valeur militaire yi xam ne moo nekk ñoom mu nekk ci ñoom kon loolu dana yombal trop euh, suñu développement économique. damay nuyu ñëpp sant ñëpp nuyu monsieur le maire mi nga xam ne ne moom la àndal muy Serigne Mboup ak euh, le gouverneur bi nga xam ne ne moo teewal tey président de la république di ko wax ne mu jël suñu eggale ak tamit commandant bi troisième zone bi nga xam ne ne ñoo fi défilé bu rafet bii nii tey honneur bu mag la ci ñun teew fii nii en tant président conseil départemental ci défilé bi mu nekk lu symbolique ci ñun président conseil départemental boo xam ne ndaw lañ te ku ne indépendance day fekk ndaw yi moo tax maa wax ndaw yi indépendance bi ñu am suñ maam yi ñoo ko xeex bañ am ko suñu obligation mooy fexe nuñ ko gën a consolider pour boobu nañ ci gën a góorgóorlu féliciter population Kaolackois bi nga xam ne ne ñoo fi teew ñoom ñëpp ak tamit population Sénégal bi nga xam ne ne ñoom ñoo fête seen indépendance bu nekkul am solo maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye tamit di wax ne yàlla may kooru jàmm di ko souhaité jullit yëpp waaye tamit suñu mbokk chrétien yi nga xam ne léegi tamit seen koor yi jeex tamit maa ngi leen di ñaanu di teg égle jàmm ak salaam Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Kaolack ndangaan yàlla ci ëpp gannaaw ba mu rafetloo li nga xam ne rek mooy défilé 4 avril bi foofu la ca diwaanu Dakar Ndiaye moom ministre conseil bi di Jean Paul Dias daal rek sàkk ñu daal di changé li nga xam ni fa la ñuy defee boobu le défilé at bu yàlla sàkk rek dippee ko li nga xam ne mooy boulevard de la nation ndax askan wi ñoo ko moom ay kàddu Jean Paul Dias ñu teewlu ko. bi indépendance yi a maa ngi a fukki at ak ñett wala ñeent wala juróom maximum donc bu daal un défilé boulevard de la nation qu'on doit boulevard de la nation parce que là où défile notre armée nationale ça doit être pas le boulevard de Gaulle mais le boulevard de la par quelqu'un d'autre à la nation c'est là où défile notre armée boulevard de la nation c'est pas une requête c'est une idée ça peut faire l'objet d'un débat comme nous sommes ici à la place de l'indépendance moi j'étais tout petit quand ça s'appelait la place n'est-ce pas était un, gouverneur français du Sénégal. Donc on l'appelait place indépendance, ça ne choque personne. Il a raison. Lorsque j'étais à l'école nationale d'administration, j'avais fait un mémoire justement où je parlais de la désertification, de l'abattage des arbres, de la désertification en Casamance. Sunyker FM. moom njiitu réew mi ci discours à nation bi mu doon def rek daat na yëkkati wax lu soxal wàllum loyer bi mu jàpp ni moom ma xamam àggul foofule ci li nga xam ne rek mooy wàllum loyer ma tax rek askan wi ñoom itam doon xaar leneen ci ñoom nday yali fal ci jàngat bi njiitu réew mi Macky Sall daal di fësal di xamle ni moomee nag jamono ji moom mënatul àddu jëmale ko ci li nga xam ne moom mooy wàllu location yu nu mel nag mu xamle ko ni ki lancement bu mu doon amal ñeel semaine nationale de la jeunesse moomee nag di njiitu réew mi Macky Sall di xamle ne rek fu mu toll nii moom mënatul waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy bailleurs yi ngir rek ñu wàññi li nga xam ne moom mooy location bi ku doon nag ab déclaration boo xam ne association gi ëmb ñi yëngu ci wàllu location situation daal dinañ ko ñaawlu bu baax a baax bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xam ne moom mooy seen njiit ga ci Ilimaan Sall nga xam ne sax moom moo leen jiite moom mee nag ma ngay xamle ne bire mbir moom njiiti réew mi Macky Sall dafa wone ab lajjiteem bu baax a baax ci waxtu goo xam ne nag njëgu location bi daal dina seex bu baax naam sax su fekkente ni ñu ngi doon amal ay waxtaaj ngir rek ñu xool ana naka la ñu mun a def ngir mun a ñongal bu baax a baax jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy ci wàllu location ñoom ñee nag nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu location maanaam ñi nga xam ne ñooy nekk ci association bi ñu ngay xamle ne moom njiitu réew mi Macky Sall moom daal dina laaj bu baax a baax ci fàttali nag moom njiitu réew mi Macky Sall sax mi ngi doon xamle ne dina amal ay losement sociaux loole yëpp nag ngir rek mu mun a defaraat bu baax a baax jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel ci wàllu logement bi. Sunuker FM. wax lu soxal wàllum politique ak jigéen ñi nga xam ne rek ñooy euh, femme de benn bokk yaakaar foofule ca diwaanu bambay daal nañ rek joxante loxo jàppale ki nga xam ne rek mooy Mor Ngom ngir ñu mën a am majorité foofule ca législative yi ñu dëkk ma la ñeel fanweeri fan ak benn euh, ci weeru juillet atum 2022 bi ñu teewlu ci ñi nga xam ne rek ñoo jiite boobu la plateforme euh, yu jigéen yu benn bokk yaakaar di nguy femme fay ak kii di Aïssatou Dieye plateforme bi lancement bi dañ ci kontaan li tax ñu kontaan ci mooy dañ ci ànd ak ay jigéen yoo xamante ni tey xam nañ ne bu ñu jàppanteeg ñoom dinañ am li nga xamante ni moom lañ bëgg ci suñu departement surtout muy ci li nga xamante ni mooy la coalition Benno Bokk ci fii ci Bambey ci li nga xamante ni moo di parrainage yi tamit ñu nekk ci dinañ ci def liggéey bu am solo ànd ko ak jigéen yëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi bokk jeune femme leader. Le coordinateur du département de Bambey mooy le ministre Mor Ngom, un homme passionné de politique. nekk aux premières heures aux côtés du président de la république Macky Sall di jàppale ay ndaw ñuy dégg wiiw macha allah ku mu gunge macha allah njëg lay doon ngay rek. monsieur le ministre Mor Ngom defe naa ne c' est toute une histoire ndax Pikine dama ko doon organiser il y a à peu près deux ans balaa ñu dugg ci Covid bi le ministre Mor def déplacement en décembre bàyyi yitteel ñëpp loolu duñ ko mës a fàtte waaye duñu mës a fàtte également ay problèmes yu bëri yu am ci département de Pikine nga ñuy taxaw di naxtaan ak ay jigéen ak góor ñi mouvement yu mel noonu kon puso bi nga yor di ñëwal le président de la république dañ la ciy jaajëfal bu baax a baax. Euh, mouvement euh, jeune patriote du Sénégal ñoom itam ma fa yéene gunge euh, seen njiit bu di Ousmane Sonko ci li nga xam ni rek mooy élection yi ñu mal atum deux mille vingt quatre daal di rek lancé ab requête jëm ci cinq mille patriotes yi nga xam ni rek bëgg nañu koo am ci mim réew Sénégal waaye ci loolee sax ñu bëgg dajale ci koppar lu toll ci ñaar fukki million ak juróom-benn rek ngir jàppale ko seen njiit bi di Ousmane Sonko ñeel ñeel li nga xam ni rek mooy présidentiel.

2024 bu ñu leen dajalee incha allah nañ mën a donc nit yi te ne dinañ voté incha en 2024 le président Ousmane fekkee am nañ engagement bi ak détermination bi war rek je que 26 millions nekkul parce que chaque jour ñu fi ñu fi fas fasere ay milliards yi nga suñu xaalis donc fekkee ñun suñu biir wax nañ ne que dajale 26 millions que c' bien réalisable loolu nag si naka lañ koy demee déjà dañoo bëgg def ay cotisation mensuelle nga xam ne na nekk 1 à bu loolu weesoo aussi dañuy confectionner aussi ay t-shirt ay lasos loolu buñ ko defee aussi dina permettre da nga xamante buñ ko jaayee nañ si mën a am tamit ay fonds organiser aussi ay dîner de gala année 2022 bi ñu nekk 2023 loolu lépp buñ ko dajale nañ am ay fonds yoo xam ne donc 26 millions kon c'est bien réalisable et atteignable incha allah dañuy daal di dem ba ca Kutaale séeréer uh, ak askan wi nga xam ne nag maire ba futt la ñu daal di def ndax seen suuf sa nga xam ni rek seen maire ba ma ngi koy jàpp di ko caxat-caxati lu ni mel nekk seen i patrimoine seen i maam bàyyi leen ko way laa sax uh, ñi nga xam ne rek ñooy askan wa jënd ko ak seen i koppar ne du ñu nangu benn yoon uh, ñuy jàpp seen suuf soosu di ko salfaañi jàngat bi ak Cheikh Tidiane Dansokho lañ ku ñaxtu suñu maire wu Ndiaffate di madame Assou moom moo fas yéene caxat caxatee suñu suuf si jaay ñu doole jaay suuf si ñu ah, waaw par moom wax nañ parce que euh, liggéey bi mu ngi commencé depuis depuis 2017 la lotissement bi commencé 2017 la ko commencé lotissement bu njëkk ba ñu dem ba ci dëgg bi mu arrêté lotissement bi donc arrêté lotissement bi ba 2021 mu doon koy reprendre nañu alors en 2017 amuñu woon euh, euh, autorisation autorisation ñu ko door am en 2021 en 2017 lam cee deful dara parce que daf ne ne su ma suuf sa ba pare ku ñu lotissé sa suuf dinañ la utal tool ca dàkk ku ñu lotissé nag te doo deful ci dara lotissement ba ba eh bien lotissement Koutal lay doon eh, ñu ataaya waaye Marème Faye Sall fii cosaanam la Marème Faye Sall papaam Njuura Fay ñëw na fi tuuru famille Fayeen ba sonn nañ wax maire bi ne ko fii kekk la nen du fi bonde ah na def ndànk te xam ni muy def man nag waxatuma sax maire bi Macky sàll lay waxal an ah tant que père de la nation na xam ne ay njabootam a ngi nii ba ñu joxe seeni bakkan ah fii ku fi dee ëllëg responsable la ndax kat sous préfet moo fi nekkal Macky Sall sous préfet bu am oda bu ñëw fii euh, visiter suñuy terrain sans mu avertir suñu chef de village sans mu avertir population bi ba meres bi am audace indi ay nit ñuy ñuy mesurer terrain yi Macky Sall am na ci part de responsabilité dee mbaa mu gaañu fi mbaa mu loru fi mbaa ñu nekk fi di fi xiif na xam ne bu ëllëgee bu jàkkaarloog boromam dina layoogi yàlla coono gi mu ñu teg te coono gi paasawul ñu or naaj bu tàng bi nekk fii di coowoo di yuuxoo di daw di pour rek rien ñun li ñu moom olof moo ne alalu jàmbur boo ca bañee kasara dara suuf si la ñu am suñ jëkkër yi am suñ njaboot gi suuf si la yaakaar balaa ñoo sax xalaat fu ñu dëkk ëllëg nañu xalaat lu ñu dundee ba pare amuñu lu ñu dundee suuf si la ñu bëgg a dundee ngir yàlla war a sori woo ñaar fukki simili ak juróom ñett ma bootu ci uh, ñaari waxtuñu ñu soobu ci ñaareel xaaju xibaar yi dañ koy doole ak xibaar yi bi ci réew di ci ànd ak soxna Roqay Sall Euh, daañ ci dikkaat ci li nga xam ne rek mooy xibaar bi ci réew lañu daal di dooree ñaareelu xaaju xibaar yi dañ ci yànd ak Roqe Sall. dal leen nag jàmm si xibari biti réew yi dañu koy dooree nag fële ca réewu Mali lu tollu ci ñaari junni jihadiste la ñu daal di faat lu toll nag ci juróom fukki ñoo xamante ne nii rek daal di nañ leen teg loxo loolee moo nekk bilan bi nga xam ne daal di nay tukkee ci opération militaire malien ba nga xam ne amaloon nañu ko ci ay bés bi ñu weesu ci dëkk bi ñuy wooyee muraa faree ci xolu Mali waaye nag boobe opération daal di nay indi ay jéeya jëm ci wàllum violence yu nga xam ne ñi di takk deru Mali yi ñoo ko amal ci ñi nga xamante ne ñoo jógee fële ci diwaanu russe di leen jàppale loolee tax ñi ñuy wooyee mission des nations unies au Mali maanaam MINUSMA ñoom nag ñu ngay sàkku rek ñu daal di ubbi ab enquête jëmale ko ci mbir moomee waaye nag boobaa léegi gisuñ ci benn yoon ay tànk jéego yoo xam ne dox nañ ko si xibaar bi ci réew yi dañ koy woyandi ba fële ca diwaanu Darfour procès bi nga xam ne moo jëm ci mbirum Ali Mohamed Ali Abderrahman daal di fan ci weeruk avril bi fële ca cour pénal international mu nekkoon njiital ministre bi ñuy wooyee Zanzavit moom nag li ñu xam ne rek moo di moom taxtewut te ci li nga xam ne moom lañu koy tuumaal jëm ci fanweer ak benn njiit yi nga xamante ne nii rek tuumaal nañ leen jëm ci wàllum crime contre l'humanité waaye itam ak di nga xam ne moo di crime de guerre bi nga xam ne amaloon nañ ko ci atum 2003 jàpp 2004 foofee ca Darfour li ñu mel nag tax rek ba procureur ba moom mu ngay xaar ñu daal kat yi dëggal li nga xam ne dëggal li ñi mel ñu daal di wëyandi xibaar yi ba tey fële ca diwaanu Chine foofee nag ak séparation la ñu fa daal di nemmeeku diggante ñi nga xam ne ñoo di waajur yi ak seeni doom li ñu mel nag li ko waral du leen lu dul mbas mi di coronavirus nga xam ne rek mu ngay wëy di law ca dëkk bi ñuy woyee sàngaay loolee rek tax ñu daal di tàqalee ñi nga xam ne ñoo di xale yi ak seeni waajur ngir rek eh, daal di fànq bi la feebar li ñu mel nag tax rek yi bii di Shanghai ñu daal di jeexalee xibaar yi ba fële ca diwaanu Ukraine gannaaw nag ba ñu nemmeekoo ay doomi adama yu bëree bëri nekk ay civil ñu daal di leen faat ci dëkk bi ñuy wooyee Bucha li ñu mel nag communauté internationale bi daal di jàpp rek ne ab génocide la li ñu mel moo tax rek kii di njiital Ukraine euh, di Volodymyr Zelensky war dem rek taxaw fële ca conseil de sécurité bu l'ONU ngir ñu amal ak l'enquête jëmale ko ci mbir moomee gannaaw rek bi nga koy toog du waxtaan ngir rek delloo si waat jàmm ci diggante ñaari réew yi xibaar biti réew jaar na fii buuree di leen ñaanal kendalu jàmm ak salaam. di ko ñaanal kendalug jàmm ak salaam moom soxna Roxaya Sall nes gis ñi dikk ak yéen ci xibaar yi tàggat yaram. xibaar yi tàggat yaram dañ koy daal di dalal moom coach Abdoulaye Senghor maa ngi lay ziar. delloo ziar soxna Marie. yaa ngi am jàmm ñu ngi sant baal. alhamdulilah koor gi. ça va ñuy góorgóorlu. ay ca xibaar yi tàggat yaram dañuy koy dooree ak foot local préliminaire yi fii ci coupe du Sénégal euh, ba sëb tay bii nag fas nañu amal ab jongante ci stade Lamine Gueye. mi ngi noonu euh, jongante boobu de sax dina dox diggante AS Saloum ak Yes FC nekk ci euh, catégorie U17 yi nag li ni mel sax fédération sénégalaise bu football moom moo ko daal di ne nag gannaaw ba nga xamante ne sax ñu ngi nekk ci ñeenteelu wërngal boobule tour préliminaire coupe du Sénégal ci catégorie boobule nag niki tey nag bu 21h jotee stade Lamine Gueye bu Kaolack nag dina daloo jongante bi nu mel diggante ay Saloum ak ñii di waa YES FC mu ngi noonu dañuy daal di wax lu soxal mondial deux mille éliminatoire plutôt CAN deux mille vingt trois euh, li nga xam ni rek mooy CAF ñoom ñi ngi daal di rek euh, penché wu ci li nga xam ni mooy tirage au sort. noonee lañ ko daal di amalee nag gannaaw nag euh, ci ay semaines yu ñu génn nag édition bu mujj ci coupe d' afrique des nations nag confédération africaine bu football nag mu ngi daal di xalaat rek ci anam yu ñu war a amalee li nga xamante ni moom mooy tirage au sort édition deux mille vingt trois ba nga xamante ni war naa xewee nag ca diwaanu Côte d'Ivoire nag. noonu nag sapo yi nag daan nañ koy eh, tëral nag jamono ji nag Sénégal nag nga xamante ni moom mooy eh, champion eh, d'Afrique moom mi ngi fare sax ci li nga xamante ni moom mooy sapo en bi nag daal di fay nekk ak ay naataangoom yeneen équipe nag ci mel ni Maroc Tunisie Nigéria Algérie Cameroun Égypte Mali Côte d'Ivoire Burkina Faso Ghana ba ci République Congo ci beneen sapo bi nag Afrique du Sud Cap-Vert Guinée Ouganda Gabon Bénin Zambie Congo Madagascar Kenya Guinée équatoriale nag dañuy daal di fekk ji Namibie euh, Guinée Bissau Niger Mauritanie Libye euh, Mozambique Malawi euh, Zimbabwe Gambie Togo Angola ci ñeenteeli sapo bi nag la ñuy daal di fekk ji sax ki nga xamante ne moom mooy Comore Tanzanie Soudan Rwanda Libéria Lesotho Eswatini Botswana Éthiopie Burundi Soudan du Sud ba ci Sao Tomé et Principe. mi ngi noonu dañuy wax lu soxal wàllu mondial 2022 ñii di FIFA ñoom itam ñi ngi daal di génne koppar gu takku. rek uh, teg ko ci table ji ngir Sénégal mën a waaj waaj bu mucc mu ngi noonu nag ab koppar bu uh, tàkku nag lañ daal di uh, teg ci kaw table bi nag mu toll ci ñaari milliards ci suñuy koppar nag noonu nag jagleel ko équipe yi nga xamante ni daal di ñu qualifié nag ci boobule mondial nag Sénégal dana jot ci boobule ndàmpaay nag ngir jëmmal péris préparation waaye tamit tàggat ngir rek mën a àggandi ci compétition bi nu mel ci anam mucc ayib nag ki xam ne sax di patron. ginnaaw euh, sport euh, fii ci diwaan bi nag di euh, Matar Ba ministre Matar Ba nga xamante ne nag buñ ko invité nag ca quartier général daal di xamle li ni mel ne sax FIFA du yem ci loolee danañ daal di verse waat beneen prime nga xamante ne nag day dégmal qualification gaynde yu Sénégal ci phase finale coupe du monde ba nar a xew nag fële ca diwaanu Qatar ci fàttali nag Sénégal mu ngi nekk ndi ci ñetteelu participation ci phase finale coupe du monde. mi ngi li xam ne mooy Ligue des champions ñi nga xam ne rek ñooy anglais yi daal di nañ ci fës bu baax. mu ngi noonee ñaari anglais nag lañ ci daal di eh, nemmeeku nag ni kii nii tey nag Liverpool dana daal di eh, laale nag ak ñi waa Benfica ci beneen wàll ga Manchester City eh, moom mooy daal di laale nag ak ki nga xamante ni moom mooy waa Atlético de Madrid nag ci noonu nag boo mooy ñoom ak ñaari anglais yi nag dinañ amal destin croisé ndax nag ki génn ci refinale yi dinañ daal amal beneen jongante nag boo mooy dina dox diggante euh, Liverpool ak City nag mu war a soxal sax demi-finale Ligue des Champions wa sax équipe bi nga xamante ne nag moom mooy euh, génn ak ndam ci euh, jongante yooyu leen jeexale ko ak sunu lamb diggante euh, jeexale ko lamb ji ak euh, rëg-rëg euh, Sa Thiès bi nga xam ni nag daal nañu koy officialiser. mu ngi noonee officiel na nag jamono ji tembe nag naam sax observateur yu bëri ñu ngi ko doon xaarandi bu baax a baax nag Gaston Mbengue moom moo daal di tëgg combat bi ni mel nag nar dox diggante Sa Thiès ak kii di rëg-rëg naka noonu nag ñoom ñaari manager mbër yooyu sax daal dinañu commencé di tëkkuwante nag ku ci nekk nag di promettre ab spectacle bu mucc ayib nag ci lamb làmb jooje nga xamante ni nag nar naa dox diggante eh, ñaari ndaw yi nga xamante ni ñu ngi dollu seen digi dool digi doole waaye tamit rek rek mi nga xamante ne nag mi ngi am benn ascendant bu fulgurant ci eh, làmb Sénégal ndax nag eh, bi mu tàmbaleek léegi rek kenn daadu daanu ko ci lamb ji nag mu mel ni que moom moomee sax lajul benn yoon ci combat yi nga xamante ne daad na koy amal mu ngoog li mel moom mooy daal di kër man sa xabaaru tëggat yaram cant ngërëm ñëw na la canta ngaram ñel la ko moom coach Abdoulaye wax ci xibaar yi tàggate yaram yooyu wentaax yi loo ñu dikk ak yéen ci li ëttu yëgle kay xëy tey xibaar yi ci tey dañ koy dalal Mouhamadou Junior Cissé si ngi lay ziar maa ngi laa fay soxna Ndeye Marie Dame koor gi <laughs> Cissé Cissé dégg naa du ngeen wër de yéen ñu ngi nii ci kawam rek yéen si euh, ñu ngi nii ci kawam téye ko bu baax. yàlla baax na ay ana lan la ëtt yëglekaay xëy fësal tey ci talaata ji. mu ngoog dal leen ak jàmm ëttu yéenekaay yi nikki tey daal dina ñuy xëyee kàddu njiitu réew mi Macky ak juróom fukk ak ñaareelu anniversaire indépendance bu Sénégal mim réew daal di jot lii di souveraineté euh, lii di souveraineté nationale yéenekaay bi di Dakar di ñëwaat ci kàddu njiitu réew mi Macky Sall ak adresse à la nation bi mu def ñeel mbirub xëyub ndaw ñi. Euh, mbay bi agriculture bi sport bi ak yeneen i fànn rawatina lii di défense beeg sécurité mim waa njiitu réew mi Macky Sall bàyyiwul dara yéenikaay bii di euh, bés bi le jour naan ñu 4 avril ak souveraineté alimentaire ba ci la paix en sax loole bokk na ci lu gën a soxal njiitu réew mi Macky Sall moom moomee ne jamono ji dañoo nekk en guerre maanaam ay combat la ñuy amal bokk na ci noonee fexe ba euh, ñi nga xam te ni ñoom ñoo di askan bi am lu ñuy lekk waaye itamit ñu jëfee li nga xam ni moom moo di bay dundee ngir am ci mim réew bi ndax gis nañ ne saay su fekkee rek ne biti réew daal dina ñuy nekk ci tolof-tolof mim réew dañuy am ay jafe-jafe ñeel li nga xamante ni moom la ñuy lekk waaye itamit beneen fàll bi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall daal dina ciy wax te mu soxal ko lool muy mburub force de défense et de sécurité yii bi di l'info daal di ciy xëy yi naan ñun njiitu réew mi Macky Sall kañ daal dinay ràngatiku ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci l'armée bi rawatina ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def ñeel daggub garab bi ak trafic de bois bi moom njiitu réew mi Macky Sall bàyyiwul dara ndax bëgg na ñu sone li nga xamante ni moom moo di mobilisation général ci biir yéenikaay bi di le soleil national mu ñuy xamal ne face à risque flambée prix wu denrée alimentaire yi maanaam njëgub dund gi njiitu réew mi Macky Sall taxaw na temb ngir ñu jàmmarloog moom loolee li ciy saafara du lenn lu dul bay dunde gi maanaam ji fii ci mim réew ñu daal di fiy bayee li nga xamante moom lañ soxla ba noppi di ko jëfandikoo bañ di jéggaani feneen yéenekaay bi di laas quotidien naa ñu niki démbuka ñaar ah, lii di 4 avril bi dañ kaa célébrer ci sobriété maanaam ci gàttal la amul xumbaay amul mbumbaay ñim gën a tekkee lañ ko defa tekkaaral googee mu mel ni que ne la turbine daal dina ci ñëwaat ci chiffre yi nga xam te ne am nañ ko ci programme ba ci projet njiitu réew mi Macky Sall gannaaw indépendance ak léegi waaye itamit moom Macky Sall ba mu jëlee lii di nguur geeg léegi ani lan mooy lan mooy promesse am yéenikaay bi daal dina ci xëy niki tey lu nara lu tere nelaw njiitu réew mi Macky Sall yéenikaay bi di direct news mi ngi ci ñëwaat naan ñu njiitu réew mi mag Sall ci li nga xamante ni moom moo di sommet bi tere naka nelaw jamono yi ñu toll ak yenn yi nga xamante ni digee woon na ko ca jëfe yu ko waaye itamit ñàkk gi nga xamante ni nekk na ci mim ba ci sax nit ñi luñ lekk boo moyul di ngeen a manqué ci mim réew ak li nga xamante moom moo di àdduna wërngal këpp feebar wi di coronavirus yéenekaay bi bàyyiwul dara ci lépp la daal di xëy mu mel ni que ne ñoom ñooñee yéenekaay bi ñoom ñëpp dañoo songandoo li nga xamante ni moom moo di kàddub njiitu réew mi Macky Sall kàddub yooyee ak euh, lii di réaction wa euh, discours à la nation bi ñii di kujje politique gi daal di nit ñi bu dee Macky Sall maanaam ci gàttal ñoom ñooñee kenn nangu ci yëy bi ñoom ñëpp pat pataaral lañ def daal di ko woon dox te nga xamante ni sax nemmeeku noon nañ saabu euh, discours à la nation amee woon nañ ñi di ko jëpp politique gi dañ ci yëy yàbbi bile yoon nag dañoo ne toog noppi waxuñ ci dara ci biir yéenikaay bi di Vox Populi euh, kii nga xamante ni moom moo di Serigne Mbacké Ndiaye mu ñuy xamal ne kujje politique gi est en train de comploter sur le dos du peuple ñoom ñooñee sax jàpp nañ ne dañu comploter ci ndoddub askan wi ñeneen ñoo xamante ni seeni mbir daal dinay jéggi dayu ñu ngi ci biir yéenekaay bi di Vox Populi ba tey ñeel dossier wu Adji Sarr ak Ousmane Sonko am ay mbir yu doy yi nga xamante ne daal dina ci génn ay révélation yoo xamante ne dees nañ kaa mën a déglu ci nopp waaye itamit ay audio yi nga xamante ni jamono ji mi ngi fi te di jaar ci réseaux sociaux yi mu mel ni que ni euh, ñii di waa justice bi am nañ liggéey boo xamante ni war nañ kaa mën a def ngir rek càmbar mbir mi waaye itamit ñu situé euh, li nga xamante ni moom moo di mbiru viol bi fu mu la féetoo mu ngoog Ndeye Marie looloo gënoon fës ci li nga xam te ne moom moo di ëttu yéenekaay yi. cant ak ngërëm ñeen la ko moom Mouhamadou Junior Cissé ci li ëttu yëglekaay yi xëy fësal tey mooy daal di sax yëkkat ci jotaayu euh, ñaari waxtu yi euh, ci euh, bile kër di sunu kër FM di leen jaajëfal di leen ñaanal kenn di ko sàkku ci yéen jërë ngeen